bu yebee ay nit ñu mën a ñëw wàccee suñuy nit ci ñun ñoo moom man demuma ne fal leen ma man moomuma société bi man action wu ville de Dakar lay gérer foofu ci société bi géey bokku ci amu fa action même ñu actionnaire yi sax dañu jaaxle bëgg nañu mu ñu laajte mais si géey laa lan la war a mun a doon ba war a mun a ñëw bugg a nangu centre bi

mu tribunal ne bu fa ken versé nañu versé Babacar parce qu'il a le droit mu ne loolu mais benen cas du ngi fay li est-ce que ñu ngi bon bon caisse de consignation pourquoi vous muy téy man du ne jël pas fa vous dew ma fa sama agent ba fa nek agent légal un jeune étudiant sorti de de l'université de Dakar gestion Nous, ñu jox ko responsabiliser instruction tu fais un, un rapport tous les mois tu verses l'argent dans le compte mu xëy suba que génne ko jël keneen teg fa ka mu fa teg barki dem bi ñu ko fa a dafa daw parce que il est il disait qu'il était représentant de l'État waaw nous ñu ngi toog di xaar État Je kan procureur Je suis procureur ne lii

moom ak xaritam mais dana leer ñu xëy suba xëy na dañuy peinture bâtiment jàmbur nga ne da koy peinture nga jël xaalis bi ñu la jox parce que luubal nga ko nga ne da nga am loo ci def man nag du ma nekk di tontu géey parce que géey daf may traité man ndakaaru laa dëkk nit ñi xam nañ ma mais nag géey attention de li mu wax na ko prouvé de naa nag li ci des mooy man li ma wax dinaa ko répétoire wax naa commerçant yëpp nañ ma déglu nag bu baax ñoom commerçant yi ku ci jox sa xaalis koo ko warul jox bu waxtu fay jotee di nga fay man nag laajuma leen bu kenn bu ñu jox kenn xaalis nañ téye seen xaalis yëf a ngi ci loxo yoon dañ ko bàyyi ci loxo yoon lu yoon décidé rek mais nag bureau bi moom dootul ubbee ko ci moom muy wër di wax ne meeru HLM loolu dafay def dafay des divagation pour en tant que maire HLM dama en 2009 deuxième adjoint maire de Dakar du commerce et artisanat droit suis maire Dakar désigné Dakar man Matar Diop. Euh, Doudou Issa ak Aliou Ndoye ñuy quatre représentants ñu dem assemblée ak suñu yeneen partenaires yi ñu def ma PCA ci ordre ville de Dakar ma nekk maire HLM jotewul dara ak loolu deuxième élément bi mooy bi ma loolu jugee bi loolu jugee mu di ne ma jóge fa bi ñu defee ndakaaru ñu def léegi mu am juróomi adjoint ñun yeneen adjoint yi ñenn ñi nekk président de commission man ma nekk président commission commerce artisanat ak pêche bon loolu moo ma fa yóbbu mais bu dee affaire ndakaaru la maire ndakaaru plateau Alioune Ndoye la Alioune Ndoye man na ñoo daje foofu donc man ñëwuma fa en tant que maire HLM HLM doonu dara ci Petersen doonu dara ci Sogedat loolu laa bëggoon préciser